ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dinoo ay maqaam yàllaaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi comme ni leen ko waxee ni ngeen ma gisee ma taxaw maa ngi fii nga xam ne rek mooy ci eh, cité magistrat mbokk yi ah lu am solo lu doy waar seen émission fajum cosaan lépp ñu koy def ci professionnalisme lépp ñu koy def ci yar ak i teggin lépp ñu koy def ci xam-xam bu wér teg ko fu wóor mbokk yi tey ma ànd ak kan ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran mbokk yi moom laa fas yéene defal émission bu mag émission bu rëy ci seen télévision Lamp Fall mbokk yi ah bàyyi leen ko xel loo xam ne dafa jëm ci wàllu alquran loo xam ne dafa jëm ci wàllu asrar loo xam ne dafa jëm ci wàllu kurus loo xam ne dafa war a jëm ci wàllu ñaan boole kook nag ah mbokk yi di leen xamal diine di leen xamal lislaam ci la Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan dëkk mbokk yi moom la ñu fekk si tey fii nga xam ne mooy ci biir këram fas yéene ànd ak moom ci émission bu mag émission bu rëy boo xam ne war nañu ko dund tey ak seen mbokkum taalibe Serigne Gueye Mouride Sarr maa ngi egg si ak ki nga xam ne rek mooy Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye Serigne bi maa ngi lay ziar bu baax naka yitte mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi lay ziar bu baax a baax dafa mel ne kon yegg si naa ci yow yow mi nga xam ne tubaarkàlla macha allah suñu borom def na ci yow ah loo xam ne nii diine la alquran ak li nga xam ne mooy asra ba mu mat sëkk àdduna sépp soxla ñëpp di la wër ñëpp bëgg laa gis mbokk bi laa seet si ànd ak yow waxtaan ak mbokk taalibe lan nga leen di ndaw loo xam ne loolu la ñu war a émission waaw émission bi la ñun bokk la ñun bokk la ku ci bëgg boo tàllee sa loxo jot mhm. ñëpp bokk ah. ku ci bëgg soo mhm. tàllee yi nii ñu ci biir rek allah mbokk yi kon dañuy àndandoo dugg ci biir waajal li nga xam ne mooy émission bi ndax jaamu yàlla bu ne tey bëgg lu baax tey wax ashhadu an laa ilaha illallah te bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi mbokk yi njariñ képp la fii ci biir kër seen émission fajum cosaan seen mbokku taalibe Serigne Gueye Mouride Sadikh ak Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan awuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba barke borom Touba barke Cheikh Samba mbokki jullit yi mbokki taaliba yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaye di jiital ci ziar bi sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des mourides yàlla na fi yàgg te ànd ak wér noonu it la ñuy ziare bu baax a baax di ñaanal sëriñ Cheikh Thiam Fall xalifu maam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem. waaye noonu la ñuy jaare bu baax tamit sëriñ Amdi Modou Moustapha Fall suñu borom kattanal ko defal ko tawfeex ak tayseer ba lépp lu ñu bëgg ci liggéeyal ko Cheikh Khadim Cheikh Ahmad Bamba suñu borom kattanal leen ba ñu yëgale ko ak jàmm jaay mbokk yi nag bu ngeen ma gisee tey ma toog ak li nga xam ne noonu laa ànd yéen ci li nga xam ne rek mooy seen ban ki nga xam ne moom laa dalal tey ci seen émission fajum cosaan ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran du kenn ku ñuy naatable ci li nga xam ne mooy réew mi mbaa ñu koy diggital nekk koo xam ne boroom xam-xam la di koo xam ne gëstukat la di koo xam ne ku suñu boroom may ci li nga xam ne mooy wàllu ñaan ak wàllu asraar mu ciy dimbale doomu aadama yi te yàlla rekk tax ni tey kooku la ñu dalal tey muy Serigne Cheikh jaay Ndiaye Al Quran mbokk yi ci seen émission fajum cosaan wax naa leen ko fépp foo xam ne nit ku baax fépp foo xam ne nitu yàlla nekk na fa te li mu yor di xam-xam bu wér ñu mun cee dimbale doomu aadama yi mun cee dimbale ñi nga xam ne ñuy jullit yi moom laay seeti wër ko bu fu mu nekk ma fekk si ko ànd ak tey suñu borom defal ma tawféex ma fekk si ku baax ku yaatu. ku laabir ku bëgg lislaam ku bëgg li nga xam ne mooy dimbale doomu aadama kooku tey mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan moom laa fekk si tey dalal ko ci seen li nga xam ne mooy seen émission fajum cosaan ñu fas yéene ci ànd ak moom waxtaan ci waxtaan wu xóot mbokk yi nag ni ma leen ko waxoon ci bande annonce képp koo xam ne bëgg ngaa dégg xam képp koo xam ne bëgg ngaa xam lu bari ci li nga xam ne mooy wàllu asraar ak li ñu ciy def ba dimbale ci doomu aadama mbokk yi seetaanal sa émission bi te bàyyi ko xel bu baax ndax xam-xam dana fi génn képp koo xam ne nag tubaarkàlla ah mbokk yi borom asraar ñëw na doon jaay ci wàllu xam ci wàllu asraar mbokk yi bee boo tey mën ngaa xam ne wala nga dem seen bagage te xam ne lomb la tey ki nga xam ne mun naa dajal tey mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan Cheikh Ibrahima maa ngi lay ziare bu baax ginnaaw bi ñu ñëw askan waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ ñu ngi lay fay wa inniya u'iisuha bika wa suriyataha min asseytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaxduruun wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil aziim sëriñ ñu ngi lay fay nuyoo nuyu mbokki téléspectateurs yi ñuy suivre fii ci réew mi ak di nuyu kilifa yi diine yi ak di la dalal dalal sa salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek moom la ñu àndal tey mbokk yi nag ñu bëgg a waxtaane lépp loo xam ne dafa jëm ci diine waaye jëm ci li nga xam ne rek mooy wàllu asraar ak ñaan ak ni nga xam ne it tubaarkàlla foofu la ñu toll ci réew mi ci li nga xam ne nii mooy dimbale doomu aadama yi ci li nga xam ne mooy seeni tawat euh, sëriñ Cheikh Ibrahima ñu lay fay te di la ziar bu baax a baax ñu bëgg a xam kan mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran. waaw kan mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran Cheikh Ibrahima yàlla la bu xeebu waaye nag Sénégalais juddoo fii ci réew mi. ay maamam cosaanoo tey ba njaay seen jeexital di Thiénaba Seck gannaaw ba nga xamee ni dañoo jaxasoo ak wëy ci réew mi ak nit yàlla ya fa nekk Cheikh Ibrahima Ndiaye nekk koo xam ni mu ngi jàngee dëkk bu ñuy wax Thiénaba Kajoor ci ëttu Alaaji Taala Njaay gannaaw ba mu génn ci réew mi diiru juróom-ñaari at dugg ci fanweeri réew ak benn yoo xam ni dafa doon gëstu xam-xamul lasraar xam-xam boo xam ni mën na cee jëriñ jaam ni rawatina waa réew Sénégal jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye tubaarkàlla waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ba tey mbokk yi ak noonu nga xam ne rek noonu ñu ànd ak wax naa leen ko ci seen émission fajru cosaan sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran moom la ñu dalal tey euh, fas yéene ànd ak moom ci li nga xam ne rek mooy seen émission bii nga xam ne mooy fajum cosaan comme ni ma ko waxee rek euh, ñu ci ànd nag ak boroomi xam-xam yi ak ñi nga xam ne euh, tubaarkàlla macha allah suñu borom may na leen loo xam ne ni tubaarkàlla mu ngi ci ñoom ñu gëstu ko xam ko Cheikh Ibrahima wax ñu it fi nga xam ne fa la bokk waaye wax ñu ci li nga xam ne rek moo jëm ci li nga xam ne rek mooy jaar-jaaram ngir sàkku ji li nga xam ne rek mooy xam-xam sëñ Cheikh Ibrahima bu fekkee ne damay laaj li nga xam ne rek mooy xam-xam xam ne ni yor nga ko mu jëm ci wàllu asrar ndax dafa am foo dugg fu bari ndax juñu nga ko sànq waaye dama bëgg mu gën a leer ndax am na foo dugg fu bari ci li nga xam ne rek mooy tund Afrique wala ci àdduna ngir xam li nga xam ne rek mooy xam-xam bii nga xam ne mën nga fas yéene ni dimbalee doomu aadama waaw xam-xamul moom kenn mënu koo xam ne ak toogaay kese mooy am sax nañ lay yàlla moom jëru ngay jëm fenn fi nga toog mën ko fay xam na nga am ku lay orienté rek waaye bu dee xam-xamu lasaraar ngay laaj moom loolu dul xam-xam bu ay pexe di maye faww da génn gëstu di ko faww da ngay tërbiyewu ñi ko yor faww da jàng nga xam ko ñett yëpp nga yàlla def na nag man yemuma ci réew mi rek ngir xam fi lasaraar cosaanu télé ci bële dama génn naa ci gàttal daal comme émission la. tiim naa ñiin fukki bàmmi lu wëlli yu te benn wëlli wu ci bu ci nekk dëkkam ak seen kër. loolu gëstu naa ci moom. amoo ñenn ñooñu ci mën a citer rek yoo xam ne ni jaar nga ci seen i bari na ñu war a ci mën a citer waaye secret la restaurant secret la. dëgg la. yonent yi itam yaakaar naa bi ma jógee Turquie mujjee siyaare ci yonent yàlla Ayuba ak Elias ma dugg ñaari weer. bu gàtt gàtt dimbali naa fukki bàmmeel yonent ak benn te kenn ku ci nekk réew laa fekk. Mhm. ngir gëstu ismu laay ansam. Mhm. waaye bu dee xam-xamu lasaraan bii nga laaj moom nit mënu koo xam ci lu dul dafa génn gëstu ko ba xam ko ndax sekkere la yoo xam ne ay mbóot yu kasta la denc ko. Mhm. faaw nga daj ko mën ko jëriñoo jëriñ. dëgg la euh, jërëjëf euh, sëriñ bi euh, ba tey mbokk yi ak noonu xam ne ñu ànd ak yéen sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran mbokk yi bu ñu fàttali moom la ñu dalal jël na nag li nga xam ne mooy alalam jël na dooleem jël na kattanam jël na léppam euh, ngir rek li nga xam ne mooy gëstu li nga xam ne rek mooy xam-xamu asraar mu jaral ko muy dagg ay billet d'avion di génn li nga xam ne rek mooy réew yi nga xam ne moom ñoo fasantikoo li nga xam ne rek mooy ay wàlli wu nekk fa mu dem di ziare ji li nga xam ne rek mooy barab yooyu te lépp euh, mu dem fa rek ngir secret yi nga xam ne ni moo nekk ci li nga xam ne mooy asraar mu mun cee teg loxoom tey suñu borom defal na ko ko téye na ko ci loxoom ba mu wér cëng euh, Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran mbokk yi ma jox leen adresse am mu ngi ci euh, fi nga xam ne mooy cité magistrat euh, fi nga xam ne rek euh, fi la nekk ci Ndakaaru numéro téléphone am 77 097 94 94 wala ci 78 169 63 bi dama lay laaj ci li nga xam ne rek mooy turu yàlla yi nga xam ne nii mi ngi ci yow ndax am na ci turu yàlla yoo xam ne nii mi ngi xettali jaamu yàlla tur yàlla yi nekk ci man bi ci njëkk mooy ismu saati ismu saati ismu saati bëggee xam moom la mag ña di wax ni mooy sëru sërri mooy secret secret yëpp boo leen tur nit di gëstu fa muy teel a mooy ismu saati mooy baatub laa ilaaha illallah su bëggee xam kan mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye neel mooy jëmm ji nga xam ni maîtriser na baatub laa ilaaha illallah ak la ca aju maîtriser na baatub Muhammadu Rasulullahi ak la ca aju damay faral di wax ni laa ilaha illallah boo ko daggee natt ko douze araf la araf mooy lettre Muhammadu Rasulullahi douze araf la boo leen boolee muy vingt quatre araf bi vingt quatre soxla bu waaye am ci biir vingt quatre yi te ñaar ñi mënuñu ko lijjal dama topp waaw bépp soxla bu nit am ak mm-hmm. soxla ba lu mën a doon mm-hmm. mu jaar ci loxo yàlla sottiwul jaar ci loxo yonent bi sottiwul doo sa yàlla moo wax yonent bi ni ko yow ilhab baaban waahidan tuftax laka abwaab benn bunt bu nit ñi di jaaree pour ñëw ci man yàlla bunt boobu benn dong la te sa bunt yo yonente moo ma ne la Seydou Ibrahima Ndiaye mii toog soo ko bëggee xam sëriñ la boo xam ni moom ci ismu lay ahsam lay yëngu Sénégal nag ñoom ñoo bëgg lasaraar ba kuñ gis rek boole la ci lasaraar man sëriñ samay mbir weesu na lasaraar hmm. say mbir weesu na lasaraar weesu na lasaraar lasaraar xam-xam la boo xam ni boo ko jàngee ba géej gi boo ñëwee ci man fii bu ma lay door a defar danga koy bàyyi mm-hmm. yaa ngi mm-hmm. man ci nuuraa niu lay dox muy leeru yàlla dama tërbiyewu mm-hmm. ismulal azam fukki at ak benn rangoo ci garaat yi ci nit ñi di garaat ràngoo door a te loolu lan moo la ko may kuus waaw boo ma xoolee sama staff gars yi di